ndaje tey bi lu ko solool mooy euh, at bu ne au niveau du monde entier dañuy organiser benn journée bu ñuy wax journée internationale des douanes journée boobu euh, douaniers yëpp ñoo koy célébrer le 26 janvier donc euh, at bi nag administration des douanes dafa tànn la région de Thiès et particulièrement la ville de Thiès pour organiser fii journée bi donc léegi balaa journée bi mu am association bi nga xam ne dafa ëmb officier ak inspecteur des douanes yëpp comme ni mu koy defee chaque at mu organiser benn randonnée fii à Thiès pour donner le point de départ ci activité wu euh, journée bi euh, Grand Hôtel lañ koy organiser le vingt 27 mais balaa loolu aussi def nañ fii ci GPR. benn exposition bi nga xam ne day won population bi day won ñëpp naka la douane tëddee naka la douane taxawee depuis bi douane amee ba tey naka la douane évoluer donc euh, exposition bi fii ci biir lañ koy defee ñu ngi inviter ñëpp ñu bugg xam histoire de la douane ñu ñëw ci exposition bi. voilà xam nga ville ville Carrefour la et puis euh, à partir de Thiès on est presque on a euh, am nañu direction Sénégal yëpp c'est pas pour rien soo xoolee unité bi ñu nekk fii. dafa nekk benn unité bi nga xam ne fépp ci Sénégal la mun liggéey mais dañ ko installé Thiès donc loolu d' abord mooy woon ni que euh, li du autorité bi li mu choisir Thiès lu baax la et puis Thiès dafa am ay douaniers donc Thiès dafa am aussi ay population donc ni ñu ko defee Thiès noonu lañ ko defee woon Kaolack noonu lañ ko defee Tamba noonu lañ ko defee Matam donc il faut que population bi gën a xam lan mooy douane lan mooy njëriñu douane lan mooy liggéeyu douane. direction générale des douanes at bu nekk. comme yeneen direction générale des douanes ci àdduna bi yëpp si kilifteefu organisation mondiale des douanes dañuy organiser journée internationale des douanes le 26 janvier ren nag kilifa yi dañ ko tàmm Thiès lu waral Thiès laaj ngeen ko sànq c'est parce que at bu nekk directeur général des douanes day bëgg ñu mën ko décentraliser am nga président de la république dafa théoriser la territorialisation des politiques publiques loolu mooy politique yi ñuy def yëpp il faut que population yi gis seen bopp population yi nag du Dakar rek du Thiès rek du seen louis am na at boo xam ne Tamba lañ ko defoon am na benn at boo xam ne Kaolack daaw Ndar la woon ren Thiès la nii la ñuy def ba région Sénégal yëpp ñu mën a teewu foofu pour que population yi xam ne ne douane du seulement dans les capitales régionales mais partout la ba pare population yi xam aussi lan mooy suñu liggéey lan mooy suñu njëriñ wax naa ko sànq ñun askan bi lañ fi nekkal. dañ ñu ñuy jàpp lépp lu ñu def rek ñun ak force de défense et de sécurité askan bi la ñuy defal police ak gendarmerie aspe sécurité la l'armée c'est pour la défense du territoire mais ñun on nous appelle les soldats de l'économie donc comme comme bi la ñuy protéger donc loolu chaque fois bu ñu demee si région yi dañuy fexe population yi xam ko parce que ba léegi xamuñu ko bu baax occasion la pour ñun nag mu ñu ñëw xamal ko nit ñi donc ñun avant une manifestation boobu di am kuréel bi ëmb inspecteur douane yëpp te ma jiite ko muy amicale des inspecteurs et officiers des douanes dañuy faral organiser benn doxantu mooy randonnée e randonnée boobu dañ koy def en général week-end avant célébration boobu ndax daf ñuy permettre ñu jege population bi ndax boo xoolee randonnée bi ay euh, association ay groupement yu jóge Thiès yu jóge Tivaouane Mexe daanaka Mbour région de Thiès yëpp ñëw ànd ak ñun doxantu ak ñun démb defoon nañu benn. c'est benn séance de fitness pour vulgariser te nag gis nañu nit ñi ñëw nañu bu baax a baax et ñu ngi ciy kontaan bu baax ndax lépp lu ñuy def rek askan bi nañ ko defal mais il est ku ñu dem ci askan bi xam xamal leen un peu lan mooy suñu politique lan mooy suñu mbébét mu ñu di ko def chaque fois nag ndax borom tenu sa wax du bëri mais boo ñu amee yenn manifestation mel nii ñu ciy profité su population yi xam ne leen ñoom lañ fi nekkal loolu daal moo nekkoon am na tamit aussi benn exposition bu fi nekk booy xam ne mooy wane histoire douane daanaka avant indépendance ba léegi duwaat fi mu jaar yan bureau la njëkk am kilifa duwaat yu bëri ñu mel ni Blaise Diagne euh, nga xam ne mooy premier soi-disant officier des douanes moom la ñu tuddee aéroport ñu bëri xamuñu ko mais euh, agent euh, officier des douanes la woon loolu jar xam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu lu am solo la loolu nag la ñu bëggoon partager ren ak population wu Thiès. waaw ni mu ko waxee rek bu direction général ñëwee en présence du gouverneur ak des autorités coutumières religieuses et administratives. dañuy waxtaan ak ñoom wax leen lan mooy mission douane lan mooy taxawaayu douane am na yu bees yu bëri yoo xam ne douane liggéeyam démb dafa am lu siy commencé yokk di avancé ndax boo gisee àdduna bi dafa dox xarale yu bees yi il faut douane fexe na nu mu ciy gisee boppam ñii di commerce électronique mooy jënd par internet yooyu yu bees la douane environnement tamit am na solo ndax dañu war a fexe ba protéger l' environnement en même temps que euh, l'administration euh, des eaux et forêts du ñoom rek mais ku nekk si ñun war na développer environnement moo tax douane verte ak lu mel ni commerce électronique yooyu yëpp dañ ko ay concept yu bees la yoo xam ne il faut ñu waxtaan ci population xam leen lan mooy njariñ douane si merci beaucoup euh, à l'instar de la communauté douanière internationale l'administration des douanes organise cette année le 26 janvier la journée internationale des douanes dont le thème cette année est pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Et en prélude de cette manifestation, la des douanes a pour tradition d'accompagner un peu la direction générale pour vulgariser et sensibiliser davantage les populations sur la tenue de cette activité dans une région donnée. Cette année, c'est Thiès. L'année dernière, comme l'a dit euh, le colonel Camara, c'était Saint-Louis. Cette année, c'est Thiès. Et nous profitons toujours du week-end d'avant pour tenir cette randonnée Mais au-delà de la randonnée, il y a cette exposition. Permettre aussi aux populations de connaître davantage l'administration de données parce que c'est un moyen pour nous aussi de communiquer et d'échanger et de nous rapprocher davantage des populations. C'est ça un peu le sens de cette euh, activité que nous allons mener aujourd'hui. Nous remercions tout le monde pour euh, votre participation. On a eu aussi une forte mobilisation des populations. Est-ce que vous accompagnez dans cette... Euh, oui, je sais que je disais tout à l'heure, je me réjouis de cette forte mobilisation Mais ça, c'est le travail aussi du comité directeur et de toutes les personnes ressources qui ont été contactées et qui se sont mobilisées. À part, euh, je ne vais pas citer, mais je sais que les communicateurs traditionnels, les coachs sportifs, les associations, le, les comités locaux de randonnée, aussi bien de Thiès, de Tiaon, de Méré, ont tous participé brillamment à cette manifestation et c'est cette mobilisation qui nous permet aujourd'hui de dire que c'est une manifestation réussi quand même, toute modestie à part. le 27, c'est la direction générale des douanes, sous la conduite du DG, qui sera ici à Thiès, son comité directeur et l'essentiel, euh, pour ne pas dire tous les gradés de la douane, pour venir célébrer cette journée ici à Thiès, en présence gouverneur et des autorités locales. C'est une journée au, au cours de laquelle, comme je l'ai le thème qui tourne autour d'une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. ce thème est suffisamment parlant parce que nous sommes dans un monde très dynamique où les choses évoluent très vite. Auparavant, nous avions des partenariats historiques avec le secteur privé, avec l'administration, mais nous nous ouvrons davantage à d'autres secteurs, d'autant plus que nous faisons face à de nouveaux défis. La criminalité, nous avons aussi des défis sur une douane verte, mais aussi sur le commerce électronique. De plus en plus, beaucoup d'achats se font Nous sommes euh, interpellés pour voir comment capter les droits de douane, le cas échéant. Autant de thèmes qui pourraient être développés et qui permettront aux populations, aux parties prenantes, aux opérateurs économiques de savoir un peu quelles sont les missions de la douane qui sont souvent assez méconnues de la population. Comme vous le savez, il y a l'administration des douanes qui organise chaque année la journée internationale des douanes. Cette journée est célébrée par toutes les douanes du monde. et dans la politique de décentralisation de nos activités, l'autorité douanière a choisi cette année la ville de Thiès pour abriter cette journée. Donc après Tamba, après Kaolack, après Saint-Louis l'année passée, cette année donc c'est Thiès qui est à l'honneur pour organiser la journée internationale des douanes. Cette journée aura lieu le 26 et le 27 janvier ici à Thiès. Mais en prélude à cette journée, Il y a l'association des inspecteurs et officiers des douanes qui, organise, qui a organisé cette randonnée pédestre pour donc donner le point de départ euh, de la journée internationale. Il y a aussi l'administration des douanes qui organise une exposition ici dans les locaux du GPR pour retracer l'histoire des douanes sénégalaises. Bon, Thiès, c'est d'abord une ville carrefour, Thiès, c'est une ville euh, qui est au centre. C'est pas pour rien que l'administration des douanes a choisi Thiès pour abriter une unité qui a une compétence euh, nationale. Donc, euh, et, euh, Thiès abrite des douaniers et c'est la politique de l'administration. Il faudrait que tous les douaniers et tous les Sénégalais ressentent le travail de l'administration. C'est pour cela dans toutes les régions du Sénégal. Donc la journée internationale va être célébrée. Donc nous remercions l'AIOD, l'association des inspecteurs et officiers des douanes qui a organisé cette euh, grande fête et nous remercions tous les partenaires qui ont participé à cette fête.